bopp écurie bi tey ngeen jëm bis bu am solo le 6 novembre euh, seen diggante ak Siteu fa lañ toll ci préparation bi. waaw ñu ngi ciy tool préparation boo gisee paaso nga xam ne noppalikul barke moom am entraînement mooy premier turam boo nee paaso deux doo ci teg muy entraînement am de du combat boo xam ne dafa am foo xam fu mu koy yóbbu pare na am de lu may gën a wax na xale yi maanaam mobilisation yi Sénégal da ngay gis ñoo xamante xale yi ne di toj stade wala di yàq loolu laay gën a rab ndax yàlla noppi na ba pare Papa Sow suñu rakk la suñu lépp la Ousa Sow moom a jàngal bëre xam naa ko am de mi ngi na xale yi yaru mobilisé wu ñëpp am comportement am yar ak teggin ndax lu xew rek yaay jël télé bi wala yàq stade yi sa bàyyi kenn moomu ko alalu état yi ñëpp ko lépp dañ ci def entraînement di xool poisson boo ne entraînement la ba yëppi combat bañ ko àncee ba léegi poisson na combat bi am na fu mu ko na fu mu ko teg si xoolee mbër la ndax boo xoolee tey waa jàmm ga ñëpp mobilisation nga xam tey bu róon mbër duñ ko boole poisson poisson bu róon mbër ñëpp ay mbër lañu du am foo xam egg foo xamante ñëpp xam nañu egg ndax ñaari combat yi xamante ku ci daan sa morom rek fu la neex mën nga koo laaj am de mi nga dootoo fay te bi laaj yow mi ndax paaso mbër la sita mbër di ñaan nag paaso mi nga xam na ko ci yàlla may ndam ndam lu leer ah, muy échoué digganteem ak Sa Thiès digganteem ki nga xamante ni mooy Gouye Gui ret jël ki nga xamante ni mooy Papa bi première fois coronavirus yàqu ko deuxième Pape Abdou Fall tëgg ko combat bi mujj yàqu ngir ay problème de coow ak yooyu jàppal bàyyil est ce que xam ngeen adversaire bi ngeen jël wala est ce que Papa Sow aussi tamit xam ne importance bi nga xamante ne combat bi am na ko. waaw Papa xam ne combat bi kii la déggee deux. am déet bëreeg Balla Gaye xam nga ni combat boobu am na importance ndax boo xoolee Paaso bëri naag la dëggee deux bëri naag Balla Gaye deux am déet a xam fuuf a xam ne en importance la ndax làmb de ñëw xool combat bi tëggaat ko te fu Mansour am dañ koo jox cër nga xam ni kooku dafa delloo dañ ko war a delloo njukkal na mi ngi mu ñëw dëgg tëgg te caaxaanul am de booy yëpp dugal leen ci combat ndax bëgg booy am lu ñu yóbbu seen kër loolu comportement la loolu leen neex mais moom dafa booy yëpp nit nga xam ne boo ko xoolee tey di ñaanal Mansour ba lii mu def yàlla na ko def ay déwéni déwén def dérëjey Seydina am ndax lii comportement la am de paasoo tey importance u bi xam na fu mu ko jëlee ñaari sot yëpp tey paasoo dafa gëj a bëri gëjul bëri gëjul bëri ndax koo xam ne da ngay ñëw lamb ji chaque jour yaa di contact ak Modou Lo ñoom laay Pythagore ci waxam ñoom Franck ñoom ñoo xam ne paasoo yaramam dafa mel di man mi toog naa at bëriwu ma mais sama yaram ma gën a mel di bëri ña gis bàyyi laal ku yàlla rek ñun ñun waaw jeexal ndax yàllaa dul jeexal demal armée ñoo fa armée gis nga ku la mat ñaar tëdd na fa kon bu ñu jeexalee yàlla la bu ñu fi nekkee mi ngi waaw mi waaw mbër yi koy wax dëgg mbëri waaw di ko wax ñoom xam na dañ dafa jeexal ñi jeexal ña nga armée la tëdd képp koo gis muy nooy fii jeexalagul boo mi ngi noonu mi ngi noonu yooyu tey ñoom suñu demee non dëgg la non yal na ko yàlla may ndam booy nag mobilisation daa bëgg ñu ko ba ñuy dem stade di sànni xëy wala ñu daan sëmër ngay yàq fii yooyu noonu te seen papa tabaxul fa amu fa dërëm ndax alalu réew mi la ñëpp ko bokk wala manifestation ngay jël tël yi di toj di yàqaat loolu dafa ñaaw waaw loolu di ngi noonu di damm ay chaise mi te seen waa kër kuñ woon dix mille chaise ngeen nekk Éthiopie kon loolu jarut a damm nañu bàyyi foofu chaise ku ñu daan sa nga xam nga defaraat ko jëm jekk yóbbu dem yóbbu am de ñi daan yàlla mayaat leen beneen combat ñi daanu ñu am ci ñi daan ñi leen mu sampal ko tànkam jox ko ko mu ñëw ci tànk bi seetane na mën na koo bàyyee tànkam waaw waaw Siteu ko mënee bàyyi tànkamit passé bu ko passé bàyyi loxo yi rek jeex na tànk laa mu noonu loo bàyyi nit mu bàyyi laa loolu amul benn problème li Siteu waxam la wax la lu wóor lu wóorul xam nañu wóor naak wóorul yooyu yëpp stratégie dóor ay mbër la stratégie ñii laay def mais yooyu amul loolu waaw dëgg la bii moom mënul rëcc moom combat bi moom lii moom combat bi moom day leer nañ moom combat bi moom foog jël am rek barke alxuraanu karim yàlla nañu ko yàlla may nag ndax suñu rakk paafa mooy dama bëgg ñu xeex trente mille ba nga xam ne ñoom xeex nañu ñu xam ne fan la xeex bi la non bi non dëgg la doy na waar dëgg la dëgg la góos bi doy na waar ñëpp bëri na ñoom doo na bëre di xam ne si tey mbër la boo xool da ngay xam ne mbër la ndax tey mbër parcelle mu daan de muy sos waaw dëgg la dóor mu daan tey passé seetaan naa ko lamb yu bëri mu dóor nit mu daanu ma ni dóor naa nit mu daanu loolu jarul wax ndax dóor mu daanu kenn du ko yóbbu ca lamb ja ñun xam nañu lamb man génération ay tafatin la mi ngi noonu te ñëpp ah. mu daanu kenn du ci lamb ja wax nag day neex lamb loo ñëw defar sama waaw mais mën naa mais kenn du daanu kenn du ko yóbbu ci lamb demal bëre jàpp daan wala demal na leen yàlla may am na yokk mobilisation bi dëkk bi yëpp ak ki ko tëgg muy Mansour Ba ndax bëgg lu baax moo tax mu ñëw leeral ñi te Mansour ñëpp xam nañ jikkoom yar la ak siraatal mustaqiim ak bëgg diine loolu tey boo ko defee tey nga xam ne loolu comportement la waaw di ñaan na ko yàlla may ndam lépp luy xew bi su combat moom moo koy def waaw dëgg lool ci waxin la rek xam nga arbitre moom bu sifflé wul ku ne da ngay wax mais nañ ñaan yàlla rek arbitre sifflé xam nga yëpp stratégie la mhm. yëpp stratégie la tey booy ñaatey am na lu ma waxoon stratégie la yooyu yëpp àlla ni kon affaire bi mbapat la mi ngi noonu yooyu yëpp da ngay xool stratégie ñun yàgg nañu bëre yàgg am de ndax combat bi fu ko paasaw teg barke alxuraanu karim mosu koo teg ci yeneen combat yi yàlla yor ndam yàlla nag ku doon nit mooy joxe ndam dañuy ne yàlla mooy joor ndam waaw yàlla mooy yor ndam soo ma xam nga papa ku ne xam ne yaa moom benn ngeen yéen a dëkk yéen a bëreendoo yéen a defandoo lépp muy sarak tey qualité bëri am de Paaso tey nu ne lay bënnee Paaso gis ngeen ko ci làmb daana moo gën a yéeme wax leen rek te wax yàlla tax mar ñu atte lislaam ak kii ndax ñëw ma par par loolu déggoo de ne at ngeen xool ko loolu maa li yéen ma ko gën a xam yéen ñu journaliste yi ah. chaque jour ngeen gis combat Paaso waaw waaw yow mi ko gisoon nag ne yor journal di ko filmé te man filmé wu ma oo ma lu ma filmé yow mi koy filmé denc ko ci YouTube denc ko seen seen chaîne ah. ngeen ko génn ngeen xool waaw déggoo bu ñu xeexee tey avantage tey Paaso Paaso am na ron déggoo yooyu yëpp am na tey pas léegi da a gis ku njool ku jaaxal nit ku xeex léegi léegi ku njool jaaxal ku gàtt ci xeex. yow ci biir combat yooyu sax mos itam adversaire boo xam ne moo la sut wala sonal la ci. man adversaire mu yow ndax man bëri naa ak Jaguar moo ma su peeg Jaguar peeg deux mètres la mais lamb ji ah. ko dóor ko ndax bu dalee damay daw jàpp ba ma ko dóoree ñaari Touba Dakar daa xamante bu Touba Ndar ñëwee mu tëdd damaa jox wet gi ma def ko nu ma neex dëgg la lamb dafa yomb lamb dafa yomb waaw lamb jafewul ah. lamb bër tey waaw bëre ba may bëre laasana dafa mën a xeex ba ma ñëwee dama dafa mën a mbappat dama ñëw wàcc sama xeex mbappat ak moom yàlla jox ma ci ndam nongu indi ko ci 205 bi man fàttuwuma men muy gaañu yàlla na ko xare ko àjjana ñooñu comportement indi na laasana ma daan ko Pape Tine Sandika beneen bi parce que bu ma la gisee nii nga ñëwee nii ci géej gi li nga sol rek ça veut day wane ne kii xanaa kon mbirum baatin mi tamit da ko rax ci combat bi daa am loo làq xanaa yaakaar ci làmb sax bugguma ko ah. ndax 45 ans rek doy na man mii tey bu tey ji yàlla bu ma yàlla dimbali nga bëri am 45 ans nga bàyyi amaguma ko nag mais tey mais bu ñu yokkaatee ay 3 ans ay 48 ans loolu dafa bëri loolu tey nit ñi yàlla bu ñu amee 40 ans wala 42 ans ñu bàyyi làmb ndax loolu da ci làmb ndax nii ma ñëwee comportement dama leen woon diine dee day bette ah. waaw boo gisee làmb tey bëreetuma man maa bàyyi bëre waaw di gunge Papa Sow Papa Sow moo ma def ci làmb ak sama booy ñoom Modou Lo ñoom bu ñu bàyyi bëri dootuma njëm damay bàyyi bëri waaw moo tax ñu boo gisee tey nit ku ne yàlla bu la dimbalee ba nga xam ne am nga 40 ans sa bopp del sol ay yéroot ndax dee day métti dee bu doon ñëw ordre ñëppay dem àjjana mais désordre lay ñëwee ku dee bàyyi mbëbët caw jur ngaan kee eggale yàlla day bette ay mbiram am am day bette ñàkk day bette màgget day bette uh-huh. dee di bette kon ne de très attention du ñëw par ordre désordre lay ni kee moo paa bi moo war a gaañ wala paa bi màggeen na ñu yeew suba nekkee liir bee génn àddina nga xam ne mbiru yàlla dafa yéeme yàlla nañu yàlla xiir si njub yàlla nañu yàlla xiir si siraatal mustaqiim question bu ma laaj la waaw ci côté euh, lamb ji gis nañ ne lamb dafa ànd ak violence tey jii ñu bëri dañu bàyyi dem lamb parce buñ fay bu dem bu ñibbisi li ñu yore woon sax duñ ko àndaale. ñu dul jën non dama lay laaj. ban ban message ngay lancé ci ñi nga xam ne mooy seen supporters yi. supporteru euh, Siteu supporter aussi violence bi ñun ñoo sarax bi di leen ko indi violence mais tey boo fayee ko dugg ci gab bi jël sa xaalis bee tool sa yére doo indi violence mais ñu tekkiwul ñu dara ñu dugg indi violence ku ko fa def ñu jàpp la nokk la ba nga xam ne dootoo violence si ndax dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk maanaam de muy supporter Papa Sow ñëpp ku ñëw lamb ji dañu jàpp nokk la fii ñeneen ca cité bu ñu ñëwee lamb ñu jàpp leen duma leen bu ko defee ñëpp dañuy jaar ci ñëw rafet ba jekk dañuy xëcc gab bi ay euro génn ñu dem du ñu def violence mais ñi nga xam ne may ma biyee ooma biyee réeruma dem fondaare ñoo ñooy yàq lamb ji ak waa mbalit yooyu ko ci def oto mbalit la leen bépp nokk ca xaj lamb ji continuer wasalaam loolu laa leen jërë ngeen jëf yàlla barke yàlla Thank you.